alors euh, ñu daal di woyal euh, bataille. tey euh, laataa ñoo daal di jël ki nga xam ne que aussi mi ngi si bu mu bi dañuy daal di a ki nga xam ne Arfan mi ngi côté cité Góor ak fi nga xam ne exactement itam askan wi daal di de décision daal di alors Arfan ñu lay nuyu bu baax a baax baax toll lay fay. Euh, maa ngi fii au niveau de West Foire. Hmm. alors West Foire ma ne kon askan wi jamono ji naka leen daal di gisee décision bi na xam ni itam jóge na si le ministre de l'intérieur dindi barrière yi na xam ni itam amaloo na ko si buntu kër Ousmane Sonko. Voilà, euh, les riverains, comme d'habitude, hein, il y a des sentiments de, de comment dire, de gaieté. Amnañu kontaan, amnañu peut-être que euh, état loolu la war a def parce que être voulu faire ci barricadage bi. am que peut-être euh, ñoom tamit ñu faree ci APR dañoo ne ñoom état dafa xam lu tax chez Ousmane Sonko c'est juste pour un moyen pour protéger Ousmane Sonko. Mm. mais nekkul pour jaay ko contrairement à ce que disent les autres ñom tamit loolu lañuy japp la preuve année que ñoom dañoo japp ni bu ñu demee ba ñu jàpp ni que Ousmane Sonko war nañu dindi barricadage bi ils l'ont ils ont enlevé tranquillement euh, donc moo tax ma euh, ñoom ñu japp ni que contrairement à ce que disent les autres ñu faré ci Pastef wala ci Yewwi Askan Wi hmm. donc les avis divers euh, euh digënté li nga xamné ko que askan wi adem exactement voilà euh, les avis divers hein, euh, hmm. parce que nous acceptons accepter ni que euh, le barricade c'est par rapport à peut-être un mécanisme di jaay doole Ousmane Sonko ñoom dañoo jàpp ni état moo ko def juste pour protéger Ousmane Sonko alors que nous ñeneen tamit wax nañu leneen ñeneen ñi jàpp nañ que peut-être jaay doole bu ñu jaay Ousmane Sonko. moo tax ñu barricadé ko. Mm. añ ko def tabaski ba tey ñu koy. Mm. Euh, ci liñ ko tegul dara ñu dindi barricadage bi ñoom accepté wu ñu et aussi comprendre ñu lu tax tey ñu xaar ba tey dindi barricadage bi. ok en tout cas ce sera peut-être benn dossier bu euh, mag dinañu ko daal di proposé si kanam tuuti incha allah. exactement euh, boo ñu mayee tuuti ñu jël kii interview intervenant. alors ñu koy déglu. voilà bi. Euh, vous êtes en direct sur Sénégal 5 TV. Euh, dañoo bëgg euh, par rapport au levée du blocus à la cité Keur Gorgui tey dañoo xëy tey génne blocus carrément à la cité Keur Gorgui mu à la une des Sénégalais tey moo tax ñu recueillir vos avis vos sentiment par rapport ni sentir par rapport à ça. voilà bonjour donc en tout cas nous li ñu intéressé rek nous avons un am ci de jàmm nag lépp lu koy indi rek mën na nekk loo xamante ni nii lu lu lu arrangé lay doon. Hmm. donc blocus boobu ñun à l'origine xamuñu woon exactement lan moo tax ñu ñu ñu imposé woon ko ko mais bu fekkee loo xamante ni dañ ko def de manière arbitraire. Hmm. loolu bokk ci li nga xamante ni moom mooy indi jàmm ci réew mi. donc bu fekkee dañ ko def de manière arbitraire tamit depuis durée boobu ba léegi mu toog foofu noonu te amul. te amul te amul te amul dara lu tax lu koy justifié ba pare tey ñu xëy xëy dindi ko loolu tamit nekk na loo xamante ni nii teguwul ci yoon. bon niveau autorité nak ñom ñoo am ay ay information xamné ñun amuñu ko bu fekkee nek na lo xamné ne luy protéger Ousmane Sonko la lolu non tamit on pourra le comprendre li tax ñukay comprendre parce que Ousmane Sonko dafa egg niveau bo xamné actuellement ni tay hmm. lepp lu ko tax mën na taal réew bi hmm. donc protéger Ousmane Sonko da fay nek protéger protéger protéger dëkk bi su fekkee ci strictement protéger Ousmane Sonko lañ ko tegoon on est d'accord mais bu fekkee nak beneen raison moo tax ñu def ko budul boobu noonu rek loolu c'est un précédent boo xam ni c'est un peu grave pour le pays parce que ça peut tomber sur n'importe qui dans l'avenir donc euh, aussi euh, question bu ñu leen laaj mooy que ne euh, est-ce que peut-être xeex waa Yewwi Askan Wi wala F24 mën nañu jàpp ni peut-être ñoom ils ont réussi le combat parce que ñoom dañu la peut-être ñoom loolu mooy bokk na ci seen combat en tout cas ñuy tax ñuy xeex ou bien aussi euh, comme Antoine Félix Diome lu mu waxoon ni que ñoom saa yu ñu sentir que war nañu bébé blocus bi loolu la ñuy respecté tey le ministre. bon man ay Yewwi Askan Wi ak ay F24 moom sérieusement euh, nekkul ñoo xamante ni gëm naa leen trop parce que euh, Ousmane Sonko yegg na dayoo boo xamante ne nii dafa war a demal boppam daal c'est-à-dire il doit s'assumer en tant que Ousmane Sonko Sénégalais yi ñoom ñoo ko mu nekk loo xamante ni lu muy assumé la du làq ci ginnaaw kenn du làq ci ginnaaw kenn parce que bëri loo xamante ni yàqule na ko ñu ko wër ñoom ñoo ko yàqal. Hmm. donc man gëw ma loolu daal gëw ma loolu Ousmane Sonko dafa war a assumé wu comme ni Ablaye Wade defoon benn moment ñëw ne allié yëpp ku ci bëgg a dem mën nga dem ñoom it am ci ñu gëm seen benn projet. beneen bi ci des tamit li ma leen di wax moom mooy lépp lu ñuy def nañ ciy boole di wut jàmm parce que lépp looy mën a wut boo ko amul ci jàmm du la du la du la amal donc na gën a posé na gën a diplomate parce que au début on pouvait comprendre sa position parce que bu doxalewul woon noonu mënoon nañu ko jaay doole hmm. mais bi nga xam ne ba xam ne Sénégal yëpp ñu ngi ci ginnaawam kenn ñëwee du ko jaay doole maintenant dafa war a am discours boo xam ne dafa war a ànd ak hauteur quoi parce que il être président dans l'avenir te un président doit être posé ñi doit faire le nécessaire pour que ñoom ñëpp ñu am discours yoo xamante ni ñuy posé la ñoom ñëpp ay kàngaam lañ ñoom ñëpp ay cadre lañ ñoom ñëpp ay borom xam-xam lañ donc loolu dafa war a refléter ci seen discours bu ñu am discours va guerre boo xamante ni nii sàpp sàpp sàpp kii loolu laa laa ci amoon comme kii euh, am na solo bu baax a baax réaction merci beaucoup voilà ñu lay jaajëfal ñu lay jaajëfal bu baax baax euh, euh donc nan euh, la tudd mom Mor Ndiaye moom sëñ Fallou kon donc euh, ñoo ko déggandoo sëñ hmm. euh ak Mor Ndiaye lolu mo nekkoon intervenant mom Mor Ndiaye wax na la loo xamante ne moom loolu la santé ni que par rapport à la levée du blocus à la cité Keur bi et aussi par rapport euh au leader de PASTEF mom lolu la japp ni peut-être erreur la Mm. erreur boo xamante ne dafa ànd ak ak euh, waaye askan yi wala F24. Euh, pour moom dafa am dayoo boo xamante ne war naa tax moom mu mën a demal boppam moom Ousmane Sonko. Euh, sëñ Fallou ñoo ko déggandoo ñoo ko déggandoo nga ko ànd merci beaucoup Arfan ñu lay remercier bu baax a baax baax xam naa ni neen xaar li nga xam ne que moo di dossier bu mag a mag bi si kanam tuuti incha allah 5 TV Sénégal. merci beaucoup hein, euh, il était avec nous sur le terrain Donc nous allons réaction euh, sénégalais donc nous euh, si grand format bu mag bi Sénégal 5 TV Nous avons aux environs de 18 h Inshallah, par rapport à la réaction des sénégalais justement après le bi nous avons alors télévision Sénégal 5 TV.